may tàmbali waxtaan wi ci dolloo njukkal jeunesse bi nga xam ne tey ñoo am initiative bi ndax depuis ba ñu ko tàmbalee ba tey gis naa ne kenn ku nekk ci ñoom yéeneem ak taxawaayam li muy feeñal mooy rek li ñu bokk nañ ci am ndam euh, ca la ñu jëm. ci ne di ko def ba egg ci atum 2024 di ca ñaan yàlla kii nga xam ne ñun moom la tànn. te gën ne moo gën ci réew mi ngir taxawaay gën ne liggéey na ci réew mi lu kenn musul def ci réew mi xam nañu ne sénégalais yi doyaluñ ci moom ndax ñun bu ñuy fal nit dañ ko fal pour mu liggéeyal ñu suñu réew dañ ko fal pour mu jëlee ñu Sénégal ci ci point A yóbbu ko ci point B te te loolu képp koo xam ne tey yaa ngi ci réew mi même nga bañ a ànd ak président Macky Sall xam nga ne am na lu mu def ci réew mi lu war a tax ba 2024 ñu joxaat ko réew mi mu continuer di doxal suñu gëm-gëm ñun en tant que citoyen yi ñu doon mooy dañu xam ne dañu war a tënk ci constitution te li ñu gis ci constitution bi mu wax ko mu leer ci ay nopp mooy que ñaari mandat yu cinq maanaam benn bu cinq renouvelable une fois loolu la jox képp koo xam ne yàlla jox na la réew mi ngay doxal président Macky Sall benn la amagul kon jàpp nañ ne am na sañ-sañu laajaat beneen kon li ñu bëgg a wax ci gudd ci mu gàtt mooy dañoo futteeku tey boole suñuy doole boole suñuy xalaat fas yéene teg lépp lu ñu man ci pexe ngir falaat le président Macky Sall mu continuer di doxal réew mi. ñun SONES bi lii démarrage la doom ci suñu activité jëm 2024 ku ne xam ne mbind mi tàmbali na liñ ci war a def ñoom ko ci def du lu ñuy wax ci ay rajo beneen bi ku ne gis na sànc assainissement bi nga xam ne président tàmbali na ko fii ci Daaru Marnaan nga xam ne bi bi bi euh, canalisation yi ouvrage yi ay camion xañ na ci loolu dinañ ko wane ba waa Touba gis li nga xam ne président de la République mu ngi koy def ci dëkk bi kum neex nga koy gis kum naqari nga koy gis loolu dinañ ko wane bu soobee yàlla. waaye danañ tàmbali suñu activité chaque mois dinañ ci jéem a def minimum ñaari activité bu ci xajee tàmbali activités yi jëm 2024 buñ mënee gagné ñu gagné waaye buñ mënta gagné tamit képp ku fi nekk ci dëkk bi. danañ mel na ay yamb dugg say paxi bakkan ba nga xam ne APR am na ay ndaw. parce que yéen a bokk lenn lu ngeen di viser muy la réélection du président Macky Sall man aussi bu ngeen gisee ma mën a ànd ak yéen moo di man Macky Sall mooy sama candidat en 2024 ci loolu laay liggéey képp koo xam ne gis naa nga ne ci loolu danaa ci ànd képp ku ne ci leneen nit sama yoon nekk ci donc man fii laa nekk leer nañ Sénégal bi xam ne moo tax bi ngeen ñëwee te ma xam ci li ngeen nekk yéen moo tax ma sawar ci ànd ak yéen kon li ngeen xam ne li ngeen di def mu jëm ci loolu waxtu bu ngeen geesoo di ngeen ma gis ci seen ginnaaw. ne loolu ñun tàmbali leen ci ay réflexion ndax xam nañ ne lépp lu ñuy war a def pour que bu ñu demee le. en 2024 le président Macky Sall am ndam fii ci Touba avec le potentiel démographique, et j'ai l'habitude de le dire, à partir de Touba, on peut gagner des élections au Sénégal. loolu nak, day jar avec méthode et organisation kon suñu neñee zone lu bax la waaye matalewul lepp ñun ñu xam ko vraiment dañ ci dalal seen xel xamné ne ko non, noonu monsieur le ministre waxé ko

loolu tamit da ngeen cee war a tàmbali di xalaat xalaat tax sax amatu ci dangeen cee war a sóobu ndax ku wër commission yi gis ni nit ñi di bare wax dëgg yàlla war ngeen ci mën a am jàngat damay dégg ci beneen boor bi sax ñeneen ñi naan seeni ndaw ñoo fa nekk dañuy nax seeni bopp ndax jàpp naa ne yéen ñii kenn ku ci nekk am na ay nit yoo xamante ne si yaa ngi xëy di leen yóbbu ci commission yi waaye da ci war a gën a am taxawaay fexe ba nit ñi nga xam ne dañ leen génne woon ci dëkk bi yóbbu leen ci ay localité pour ay élection locale ngeen fexe nag ba delloo si leen ndax dañ leen soxla ñi ngi coow rek naan 67000 voix waaye loolu tey soo ko doon xaymawaat lu déew moo ci des tibb nañ ci yóbbu ci barab yu bari bu leen ci am lu ngeen di xalaat ku ci dendal ak nit tem demoon voté ji feneen temu leer la indiwaat ko ci biir Touba dañ koo soxla defi bi ma leen di lancé nag mooy nañ fexe yéen waa COJER yi ndaw yi ci nekk yëpp taxawaay bi am na solo waaye ndaw bu nekk na fexe bind ñaar fukki nit un jeune vingt inscrits su ngeen ko defee gëm naa ne résultat bi ñu bëgg bu dolli koo ci li fi ne woon dinañ ko am. wax nañ ko fii ci kàddu yi bés bu nu ba jël réew mi. ñu sàggane ko ba teg ko ci loxo wuyu yii ma gis nga xam ne jëmuñu fenn amuñu benn programme bu boobaa ba dana xaw a doy waar dana doy waar lool sax si ñun faatu nañ jeunesse bi fokk ñu dooleel leen nit ñeen di doolelee mooy dañ leen di accompagner ci seen ay projet nit ñeen di doolelee mooy dañ leen gunge ci lépp loo xamante ne si ñu ngi ci taxaw ndax jeunesse bi ñooy fal président Macky Sall jigéen ñi ñooy fal président Macky Sall kon lépp lu jeunesse soo lépp lu soxna soo danaa ca ñëw su ma ca ñëwul sama loxo dana ca ñëw samay ndaw danañ ca ñëw loolu la docteur Fatou Diané Gueye def tey. bi ñuy jiital Mouhamed Cissé foofu la féete. loolu voilà candidat bu nga xam ne moom la coalition bi teg Mouhamed Cissé ak ñi mu àndal foofu la ñu féete. waaye nag euh, yaakaar ba ma ci gën a am ndax nag. coalition bi ñi ci nekk dafa bari waaye bu ay mbër dajee mu nekk benn combat dañuy fexe ngemb mbër mi ci man ca président Macky Sall mooy mbër mi ci man xam nañ ni élection processus la te itam processus bi koy gagné loo ci bàyyi rek bàyyi nga li nga xam ne mooy élection bi nee na dëkk boo gis mu baax rek ndaw bu baax ndax bu ñuy wax ay ay ay ñoo ay 30 ans ci lañ taxawal seen i ba taxawal lu rëy rëy rëy yaakaar naa ni ndaw moo koy réitéré kon nañ gën a engagé wu ci ndaw nañ gën a jàppale ndaw surtout la jeunesse féminine seen taxawaay ci parti bi ku nekk xam na ko. investir président de la république def ko muy seen candidat 2024 loolu moom defe naa ni ni ko xale yi waxee euh, Cissé wax na ko fi. ñoom opposition bi ñoo nu ko jëkkoon a wax président Ablaye Wade moo jëkk a wax ni op constitution bi bu ko watee

mooy gars yi dañuy xiixaan doon xam nañ ñoom amatuñ candidat fépp fuñ mas a taxaw képp kuñ mas a jàpp ni mën nañ ko xeex président Macky Sall président Macky Sall bu leen boole kooka sànni ci àll boole mool boole leen kooka teg ci wetam. lii fi xew bu yàggul rek mu yàq yi ak saccagé yi saccagé fii su fekkoonte ni dooleel na ndaw parti bi ñu am yenn doole yi li fi am du fi am ndax bu du président Macky Sall di Serigne Touba ndax kenn ku ci nekk Serigne Touba jaral na la sa kon loolu fi am nag nañu xam ne à partir aujourd'hui du fi am. ndax ndaw ñu duut ñu ko seetaan ànd nañu nekk nañu benn te loolu duut ñu ko nag gis nañ waa kër Ousmane Sonko jamono yooyu dugg nañ dëkk bi taal ay pono saccagé fi yàq Sonatel bi loolu nag a parti à partir d'aujourd'hui ñu leen ko may ndax ndaw ñi takkatoo nañ doon benn say bu buñ jugatee balaa ñu fi yàq dara wala ñu fi manqué de respect benn kilifa diine suñ kaw la ñuy jaar ba suñ kaw la ñuy jaar ba jàll doog di egg ñoom mooy ñu fexe ba service militaire ñu dugal ko ci xale yi bu amee 18 bu ko defee su boobaa au moins danañu militaires yi ñu mën a yaral gone yi waaye xale yi fu ñu jëm fi mu toll nii du fu baax kon nañ def de telle sorte que ren di indiwaat xale yi à normal normale te loolu li ma jàpp ni moo ko man ñu fexe ku amati fukki at ak juróom ñett ñu fexe ba yóbbul Dakar Bango wala centre de formation bu militaire yi yore booba defee juróom benn weer boo génnaatee da xam ni lii la nit war a mel 69000 voix du caaxaan département Mbacké am na ko ci élection yi fi jóge mais bi ñu ko amee mais bi ñu demee élection législative lan moo ko wàññi moom élection locale lan moo ko wàññi moo war a xam dañoo am suñu électoral boo xam ne Macky Sall lañ ku ne Macky Sall laay woteel ñu ñëw taxaw ci sa pegg du ñu Sadag du ñu Cheikh Abdou du ñu Matar du ñu ma sàmb duñu ñu ma Demba Macky Sall lañ. ñooñu nag bu ay nit jógee fële naxanteeg ñoom ba génn leen dëkk bi ñu dem wote ji feneen ci élection locale loolu dafa yomb. moo waral bu ñu dikkee élection président législative bi nga xam ne ñooñu kenn du leen tudd suñu suñu électoral day wàññeeku te loolu lu mat a xool la beneen bi ci topp mooy 69000 voix ñu am ko moo tax bu ma demee dakaar yenn nit ñi naan dañoo xeeb la ngeen am damay xam ne ñooñu dañoo yàpp Macky saal ñiy wax ne Macky Sall waa Touba liggéeyul la dañoo yëpp président Macky Sall lu tax ñu yëpp ko mooy 69000 voix yu ñu am buñ ko génne woon ci élection yi ñu dem deuxième tour. may def mooy di gën a taalal sama loxo yéen ñu gën a nag fexe xaj ci nit ñi ñu ñëw ñu ànd liggéey bi kenn ku ci ne zone ba nga jiite ña nga xam ne nekk nañ fa APR te bëgg a nekk APR wala ñu nekk ko APR te bëgg a nekk APR ñu fexe leen a ñoddi ñu taw leen ci suñ kaw.